deuxième semaine bi di neex parce que dimension mentale bi dana ñëw c'est vrai waye lien am ak dimension physique dafay ñëw na ngi dugg ci cadre bu simple cadre entraînement xam nga am na ku ko poser yaakaar naa ci première semaine bi xam nga dafa am importance bu am digënté yaram ak xel dans le sens où nit lo def sa sport sport lo tagat tagat sa yaram bu fekkee connexion bi nekk fa doo am do am résultat motax ñu indi connexion esprit muscle dañuy jàngale ni gis nga nit ki muscle bi nga consciemment volontairement mën ko contracter muscle boobu la gën a développer ci yaramam xam ba xam yéen a ngi dégg muscle boobu la gën a développer ci yaramam ce qui fait que tey synchronisation bu amul diggante yaram beeg fonctionnement bi xélam ak fonctionnement am mais résultat boobu fu mëna mën ñu dugg nag ci question bi ñu posé sànq repos état d'esprit la repos état d'esprit la nañ Salvatore Dali nan la daan nelawee day am fauteuil jël assiette teg jël bi téye wéeru fu mu jàppanteeg nelaw ba rëcc loxo yi ba laal assiette bi fa la nelawam yam et pourtant noonu le fonctionné ba keroog